ngir fexe ba xeex lépp lu jëm ci tabax yi nga xam ne dañu koy tabax ci mbedd yi ñu war a jaar wala sax fu neex waaye tabax te doo am autorisation de construction loolu nag ndigal la lu tukkee ci Serigne Mountakha Mbacké di xalif général ku lu murit mu jox ko mairie bi jox ko itam urbanisme di këru liggéeykaay gi nga xam ne moom bootu ci nguur gi ngir fexe ba xeex lu ni mel sëriñ Khadim Fall mi moo ko jiite. wut autorisation bi autorisé la si ndigalu xalif bi. ñu ne kii kat ñoo ko autorisé mu tabax fii autorisation dafa am njëriñ sax si si si nit ñi njëriñ bi mu am mooy da lay dimbale yow non seulement da lay dimbale si sa alal da lay sécuriser sa foncier en même temps bis boo amee jafe-jafe mairie bi dana ko xam dina xam ne ñii ñoo ko autorisé lii te lii la demandé woon dafa demandé woon centre commercial wala dafa demandé woon station wala dafa demandé woon dëkkuwaay ba bu jëyee amee mairie moom dana xam ne lii dana si am ay matukaay yu si war a jël si loolu nag ñun dañ ci dañ ci euh, comme ni ko. monsieur le maire waxee liggéey bi lu si ëpp si chef village yi la parce que tey mën naa ne wax ne maire yi mënul nekk fépp Touba ni ñu ko ni ñu ko configuré dañoo jël chef de village yi ñu dénk leen maanaam ñoo yore affaire foncière bi bu ñu yoree affaire foncé bi am na yu bëri maire yi munu fa munu fa accéder maanaam mënul xam kan ak kan ak ak ak kan moom moom fii ak kan moo kan mooy tabax fii mais loolu chef de village si boobu ñooy war a dimbale commune bi su amee kuy tabax si koñ bi wala si si quartier bi ñu ñëw wax ko mairie. ndaje mi nag ñu amal ko niki tey jii ci mairie bu Touba ci teewaayu kàngam yi nga xam ne ñoo bootu ci commission bi saytu wàllu urbanisme loolu itam di loo xam ne faw nag ñu yëgal ko chef de village yi ak ñi nga xam ne ñoo di chef de quartier yi ba képp kuñ gis ngay tabax ñu lëj mbët ko bu laajee itam ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom la ko yoon gàll ci seenu loos ñu lijjanti ko mairie bi ci njiitul seen Abdou Lahad lépp jaadu fa fu lépp war a am nag bu fekkee ne ndax actuellement à Sénégal on a à dix-huit millions lañ wax dix-huit millions mille neuf cent soixante bi Sénégal di am indépendance ñi ngi am cinquante mille naissances lañ wax par at tey Touba rek mi ngi am plus de quatre-vingt mille déclaration naissance par at ou cent mille donc ñu ne ci ANSD actuellement Sénégal il est à dix huit millions à deux mille vingt quatre deux mille vingt trois deux mille vingt quatre mm. fii ak trente ans danañ dem trente six millions donc trent six million nag kon Touba actuellement na jàpp ñu jàpp ne fii ak trente ans lii fi nekk fii ak trente ans dana dolli ko à soixante pour cent wala soixante dix pour cent. mboolem ñi nga xam ne ñoo teewoon fii ci ndaje mi nag muy police di service d'hygiène di ñëpp ñi nga xam ne rek fànna googu soxal na leen wax nañ ne daal fu la neex tabax moom wala sax di gàllankoor barab yi nga xam ne ay mbedd la yu ñu war a jaar loolu moom day dàkk ci dëkk bi gannaaw bi ñu jotee ndigal ci Serigne Mountakha Mbacké